mes amis de snap maa leen di ziar di jox seen wàccuwaay di leen wax ni vidéo bi xewoon bërki dem foofu ci Tunisie rek jullu ci yàq nit ku am kilifa laa ku am respect laa ci doomu adama te mënoo respecté say waajur respecté ñi say kilifa ba pare di yàq kilifa yu communication bi nag xam naa damaa déggul wolof rek moo tax ni ma communiqué ak ni ngeen comprendre xaw am tuuti jaxasoo rek mais yàlla xam ne jublu ma ci woon yàq wala wax ci loo waaye di la wax ni nit moom ci li ngay yëngu rek ci ngay defee erreur ci ngay juumee communication bi nag ci ngay juumee ci ngay defee lépp nag moo taxit juum naa maa ngi jégalu yàlla ñu yàlla boole jégal képp ku suma ami loo wala képp ku suma follower rek maa ngi lay di la wax ni nit moom euh, moo matul euh, wali moo dul juum wala malaaka wala ñeneen ak ñeneen mais ñun ay doomu aadama lañ rek te doomu aadama day juum moo taxit juum naa te maa ngi tuutee jégalu yàlla ñu yàlla boole jégal jaajëf wasalaam mes amis loolu mes amis